nga xam ne mooy saa Daouda foofu ca Fadiara dañuy delluwaat ci Amadou rek bàyyi ko mu nuyu ak ñin wax ñi lan moo gën a fës foofa nga xam ne mooy kët kaa Daouda ak lan mooy xew-xew yi nga xam ne moo fa nekk Amadou nuyuwaat nañ la beneen yoon noo naa nag fii waar parce que jamono ji ñu ngi def fii ñu ngi fiy dog ay banque waaye am naa yaakaar na am naa yaakaar li may wax ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di seetaan nañ ci mën a déggee xibaar bi. Euh, jamono ji comme noo ko waxee ba léegi ñu ngi fii nii ci kër ki nga xamante ne mooy euh, former président Jawara euh, jamono ji nag ñi yaa ngi dem di ñëw depuis suba ba léegi comme ni nga ko waxee woon right now gis bu yàggut ministre yu bëri jógee ko ci nguur gi ñëwoon nañ fii pour yégee seen jaal ñoom tamit famille bi seven of them ñoom ñëpp ñëwoon nañ fi garal seen kaddu wane li nga xamante ne mooy ñoom tamit seen li nga xamante ne mooy seen yëg-yëg ci Euh, bés bi euh, ci loolu nag da ngay gis ne euh, mu nekk li nga xamante ne mooy kaddu gi benn la ñoom ñëpp wane neen daal seen kaddu ku fi jóge di former président Jawara nekkoon na kenn ki nga xamante ne ku amoon solo la ci réew mi xam naa jamono ji nag ñu bëri ñëw nañ toog pour li nga xamante ne mooy wettali famille bi fii nii ci li nga xamante ne mooy dal na seen kaw xam naa ci kanam tuuti rek incha allah nañ waxtaan ak ki nga xamante ne mooy honorable Mai Fati moom tamit mu ngi fi mu wax ñi nga xamante ne mooy Euh, askan gi euh, gannaaw bi nga xamante ne ñëw na yeggee njaalam famille bi ban yëg-yëg la am ci génnam aduna ki nga xamante ne mooy euh, Sir Dawda Kairaba Jawara xam na lu ñoo def rek léegi mooy waxtaan ki nga xamante ne mooy honorable Mai Fatty moom tamit mu fi nii kon ni ngeen ko gisee honorable thank you very much for your time Uh, you are here to uh, extend your condolence to the family of the late former president Sir Dawda Jawara. uh, first and foremost, after meeting the family, you will want to have your reaction to the demise of the former president of the Gambia. Right, must Yeah. man li dafa man. Mm-hmm. ndax mun naa wax ne man ci famille bi mm-hmm. uh, man bokk naa si. Mm-hmm. te li nga moom nag uh, kenn mënu comes on our computer mass mobile as part of the family. Mm -hmm. So, library, the late uh, Sadawda mm open book. ñëpp xam nañ ko. Euh, statesman la woon dafa bokkoon si génération bu rëy Africa fii ndax jamono bu mu commencé di xeex ak réew mi. loolu jamono tubaab la woon moom amoon na métier am mhm. xam-xamam. waaye réew mi la jiitu mu gis nga askan bi soxla nañ mhm. soxla nañ moom ñoom moom seen bopp mhm. ak takk ndigam moom ak ñi nga xam ne ñoo ko xeex ba yàlla jàppale leen réew mi mhm. génnee ci biir leen dem bu jëlee nguur gi tam ci la Gambie amee Touré Smiling Coast bi Gambie nekk beacon of peace ak stability ci région bi Gambie represent democracy ak stability ci Afrique ci àdduna loolu yëpp Awdala moo ko defoon ndax dafa nekkoon na mm. visionnaire mooy ki nga xam ne dina gis lu sori ëllëg ñi ñu toog fii duñ ko gis li mu liggéey si réew mi ñu koo njëriñoo ba tey mm-hmm. ku sedd la woon amoon fayda la ku bëggoon boppam la ku bëggoon réew mi la mm-hmm. kon Sir Dawda rôle la pour ñun mm-hmm. ak génération bi nga xam ne ñoo ñëw toppa ñun lim liggéeyal réew mi valeurs yi nga xam ne la inculqué mooy foundation ni réew mi suñu république bi loolu kenn mënu koo galgati kenn mënu koo yaaxatam kon South symbole la dafa nekk national icon dafa nekk an African heritage African pride la su demee rek moom Sir Dawda mhm. ndax liggéeyam bi effect bi dafa overflow out of suñu réew mi si boppam Euh, bokkoon na si jamono bi nga xam ne ñoom ñu bëri dem nañ. wuyu mhm. seen borom. Euh, liggéeyal na réew mi institutionnalise na démocratie bi créé na institution yu dëgër. time yi bi. nineteen ninety time yi coup d'état yi bi. ninety four euh, ninety four bi. Mhm. Mhm. dafa fekk the Gambia was a very strong republic dañu am a very strong economy. a very liquid. um, Gambia was moving towards becoming one of the fastest growing economies in Africa. Uh, stabiliser the situation we have no ko mën a xalaat. Mhm. te foundation bu dëgër boo xam ne su fekkee ne amuñu interruption bi. Mhm. Gambia si tey dafa bokk si among the top five countries in Africa. waaw loolu yëpp liggéey ma ko ñu jox. Mhm. waaye du loolu kese ku jullite la. dafa gëmoon yàlla torop eh, te warugalam ak digganteem ak boromam. Eh, man su suñu lu ñu xam loolu sàmm na ko bu baax. teg tam ku bëggoon nit la. Mhm. ku bëggoon bokk la tam. ku bëggoon bokk la. Mhm. gis nga uuf na njaboot yëpp xam ne moom mooy kilifa kabila bi. Mhm. te loolu tam motal na ko sakk. kon fi mu nekk foofu noonu ñun ragaluñu tiituñu. bu soobee yàlla. Eh, malayka yërmande eh, ñoo ko témoin ñoo ko reçu reçu ko. incha allah loolu am na solo euh, ci sa kàddu tamit noo ko waxee euh, indi nga seet nañu rafet ci moom mi nga xamante ne moo Sir Dawda ak jaar-jaaram ak fi mu toll woon réew mi réew mi euh, loolu yëpp buñ ko jàngatee ci ban contexte nga foo ne tey réew mi. Euh, noonu lañ ko mun a rememberé euh, jubluwaay bi ak fan lañ toll tey ci wàllum démocratie comme noo ko waxee moom démocrate la te tamit am na lu bëri li nga xamante ne xeexal na ko réew mi waaye tamit euh, weesu na sax réew mi ci loolu ñun as a nation lan lañ ci war a mën a jàngee pour mun a dëgëral démocratie waaye tamit mun a am Gambia bi nga xamante ne boobu lañ soxla moving forward. foog naa sa dooda bàyyi ngeen mhm. liggéey si. boobu mooy one of tolerance. Mhm. mooy one of consultation mhm. eh, mooy one of patriotism mooy one of value sarada defe bi defe naa ne ñun li ñu war a jàng si moom mhm. eh, loo xam ne dañu war a toog ubbi bu jàng ko ndax réew mi dañ ko dund li ñu dund la mhm. léegi ñun suñu war a gal mooy especially emerging young leaders ñu topp tànki Sir Dawda si nga xam ne foofu la jógi ñu ne ñu ko su soobee yàlla fi mu bàyyi won réew mi ak lim na def pour élégi réew mi. ñu mun a jox loolu. foog naa ne liggéey bi noonu la dafa nekkoon am exemplary statesman. lépp li nga xam ne si jiitu bu rafet. saa loolu am na ko yëpp. xanaa kañ njiitu yërmande la woon tam. te nguur bu nekk. foog nga yërëm. saa loolu was a great part of him. so liggéey bi. mooy legacy of a statesman who cared for his country. koo xam ne unite na réew mi keep the country together eh, keep all the ethnic groups and all the social elements together. Eh, koo xam ne tam eh, ku ku ku ku bëggoon ku yërëm ku yërëmoon waa réew mi na tam. defe naa ne loolu suñ ko toppee moom. loolu dinañu njëriñ. ndax ñi nga xam ne ñu ñoo nekk si nguur gi tey. Mhm. Saada de loolu la ñuy jàngal. mooy intérêt réew mi nañ ko jiital. Mhm. moo dem suñu intérêt bo intérêt boppam. réew mi ñu jéem a fexe ba uuf ñëpp. Mhm. ñu nekk benn. ñu ñëpp ñu booloo àndandoor manko comme li mu waxoon euh, indépendance bi. Mhm. ba bi bu ñu amee suñu indépendance comme euh, nasaraan yi. loolu la wax waa réew mi nañ bennoo nañu manko ci liggéey réew mi su ko defee àdduna bi yëpp nañ gis ne. Eh, am na li xew Gambia ak lu mën a xew Gambia la yeneen réew mi tam ñu ñëw jàngat si. ok loolu mooy woon vision am bi. Mhm. te loolu la dundoon. Mhm. te ñu nam gis nañ ko. Mhm. waaw all right honorable jërëjëf thank you very much kooku mooy honorable Mai Fatty dégg ngeen kàddu am yi nga xamante ne loolu la fi uh, gaaral moom nee na ci uh, famille bi la bokk waaye tamit nekkoon na kenn ci nga xamante ne dafa. Moussa Daouda Kairaba Diawara ndax na lu bëri li nga xamante ne euh, jàng mu nekk li nga xamante ne lu am solo la euh, kon na ngeen ko gisee nag ci gannaaw ba léegi ñun euh, yaa ngee ñëw ci yaa ngee ñëw bu baax a baax ku ne di ñëw di sa njaal ci li nga xamante ne mooy ci famille bi fii ci kër ki nga xamante ne mooy former président Daouda Diawara ndax fii la nekkoon fii ko fii démb ci loolu nag comme ni ngeen ko gisee depuis suba nag ba léegi buñ ci teewoo euh, kilifa yu bëree bëri bëri jaar nañ ci kilifa ci diine pipeline comme juma bi nga xamante ne foofu lay euh, foofu la doon dem di jullee euh, juma waxtu bu nekk wala juma bu nekk every Friday moom. ñoom tamit teew nañ ci ñi yeggee seen jaar li nga xamante ne mooy euh, famille bi loolu yëpp teew na fi waaye ndax it kon euh, ni ko waxee woon ci gannaaw am na ministre yu bëri euh, am nañ ci teewe ñëw yeggee seen jaar li nga xamante ne mooy ci kër na rek ñu déglu naa ne am na solo comme niñ ko déggee ci kàddu yi honorable May Fati moom li nga xam ne tey jii moo nekk parti leader bu GMC mu nekk euh, ku nga xam ne moom tam mu ngi liggéey ak nguur gi gaaral na kàddum wane na ñoom nguur gi am na jéego yi nga xam ne topp nañ ko ci tànk yi nga xame ne jiitu réew mi fi nekkoon di Sir Dawda Kairaba Jawara moom mi nga xam ne jiite na réew mi lu jëm ci fanweeri at mu ñàkk bakkanam démb al euh, ci talaata bi euh, ginnaaw bu mu amee juróom-ñeent fukki at ak li nga xam ne mooy juróom juróom ci biir réew mi. kon bu buñ déggee amalu tamit nga indi tënk ci ne am na ministre yu bari ñëw nañ ci kër ga jébbal seen njaal noona tamit ci kilifay diina yi wax nga ko léegi pipeline mos ñoom tamit ñëw nañ fa ñoom tam jébbal nañ seen njaal kon dafa mel ni kaddu yi seede yi jot a dégg ci ñu gaaral seen kaddu yëpp benn la ci euh, aji jiitu ji ne nit ku baaxoon la nit ku amoon yërmaande ci doomu aadama la nit ku nga xamee ne tamit bëggoon na réew mi te taxawaayam mooy naka la defee ak ñim àndal ba réew mi moom li nga xamee ne mooy seen bopp ci lu jëm ci wàllu démocratie noonu la ñuy ànd ak ki nga xamee ne moom moo nekk suñu jigéen Ndeye Fatou Bangoura moom tam dañ koy bàyyi mu nuyoo moom mu ngi war a indil lépp lu jëm ci comment yi ci social media bi ndax xam ngeen ne àdduna ak nu muy doxee jamono bi social media bi ñu bëri dañ ciy bàyyi xel te ñu bëri dañ ciy yeggee seen xibaar ci yu mel nii Ndeye Fatou nuyu nañ la. Wow, ah, ma'am, jërëjëf maa ngi laa fay ah, bari seen condolences to ah, the late Saadawda Karaba Jawara si hmm. social media bi um, I'm gonna call out now. Written seen condolences yi hmm. um, kenn ku tudda Jackson Touré Momune mu ne Jawara the Gambia's first president is gone thank you sir for your exemplary leadership may the Almighty Allah grant you the highest peace in Jannah macha allah kon Modou waaw mm. kooku ah, mooy ah, Jackson. Modou Jackson loolu la. Mm. Jackson Jackson loolu la indi ci li nga xam ne moom moo nekk njaalam kon Ndeye Fatou dinañu indil yaatal ci lu gën a am solo ci li nga xamee euh, social media bi ak ñi nga xamee ne ñoom ñu ngi ci gaaral seen kàddu yi njaal ci Sir Dawda Kairaba Jawara moom mi làkku wax nañ leen ko démb daañ ko bamtuwaat nekk na ku nga xam mu ngi judd ci fukki fan ak ci weeru mai atum li nga xamee ne 1924 mu làkku nyar ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru august atum 2019 euh, loolu moko indi mu am ñaar juróom-ñeent fukki at ak nga xamee ne moom moo nekk juróom noonu la ñuy def euh, ci li nga xame ne moom moo nekk euh, ci benn dañuy dem ak li nga xamee ne moom moo nekk comme ni ñu leen ko waxee rek jaar-jaaram briefly comme wax nañ leen doomi réew mi la mu juddoo foofu ca fi nga xamee ne moom moo nekk Baara Jali euh, euh, mu nekk bërëb bu nga xamee ne mu ngi ci gox biñ gën a xam ci fi nga xamee ne moom moo nekk Makati Island moom tamit taxawaayam ci réew mi amoon na solo ginnaaw bi nga xamee ne moom moo sos pati boobu ñu gën a xam ci euh, People's Progress Party loolu taxawoon na ko ci taxawaay bu am solo ci li nga xam ne moo nekkoon wàllu politique ngir réew mi amoon yaakaar ci moom ginnaaw bu réew mi demee ci référendum fal ko ginnaaw bu mu doonee li nga xam ne mooy first prime ci atum 1962 ba atum 1970 mu nekk président u njiitu réew mi ci li nga xame ne moom moo nekk euh, li nga xam ne moom moo nekk 1970. ba li nga xam ne moom moo nekk 1994 tey dañuy dellu rek ci Amadou amadu boo ni bamtul démb ci tiis bi ginnaaw ba mu amee am na xew-xew ak jaar-jaar yu am solo yi nga xamee ne nit yi wax nañ ci gis nga kilifa yi nga xamee ne ñi nga fa woon démb ku mel ni Papa Ndiaye mi nga xamee ne moom moo nekk parti leader bu PPP di People Progress euh, li nga xamee ne moom moo nekk parti ak ñeneen ñi nga xamee ne mun ngaa tënk tuuti ci démb rek seen taxawaay ak seen teewaay ci bërëb boobu noonu ci këram balaa ñoo dem ak Amadou ñu dem teewlu kàdduy Papa Ndiaye ci tiis bi nga xamee ne moom moo dal njabootu ki nga xamee ne mooy Sir Dawda moom mu bokk ci njaboot gi ginnaaw bi nga xamee ne moom moo jiite loolu nga xamee moom moo nekk parti bi guddi yu ni toll. Uh, asalaamaaleykum ngatini eh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun uh, lenki suna uh, o o pati o pati ngirse hana saɗa o kereba jabara ala mine ji newondi lenki ay wa duwane ɗa um, arna a dagaram um, pasoa guiriraga Ah, o tini keken ke gambe susuno ñani ah, nkeni ah, ppp chrétien ya sasa nga tini nga duwana a sudan anti sasa kebe tokota onan duwana duwan bana kanya kinyana lenki kende sera khore daga xa ona hay owa ñana moxo ɓe parce que ara tarix ñe toxoyere tarix ke ona hay lemun oni xarangude sa dawda ke raba jawra keni serebe ga hinnene serebe angotu kanan keke ɓe amma kabila baga kabilaji so keñane tan oranti o duwanɗa harsade inchallahu ba dine eh, inna lillahi wa inna di jaale amle of ley saɗa ora jawra di jaale am um, ah, domi pipipi wip di jaale gamin si ni ah, jamari jamari um, te moom ah, demna waaye dem na rek waaye history mu demut ñu seet naka la ñoo jàngale xale yi kana yoon saa daawar saa daawar ker ba moom ku gisutoon xeet ku nga xam na daf laan déglu ku nga xam ne ne moom is independence si Gambia te daf ko def time bu nga xam ne ne British yi ñu ngi bañoon soo di ko ñaanal rek yal na suuf sedd si koom di ko ñaanal yal na dëkkuwaayam nekk jannatul firdawsi ah, ah, inna leen mbaadin ah, man ni ko ndelum Papa Ndiaye nata ka malinkel nante English yes yes yes as inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Uh, my condolences goes to the family of the late Sadauda Karabajawara. Um, it also goes to the um, uh, members and family of the PPP members. And uh, my condolences also goes to the Gambia and the whole of Af um, uh, Africa and the whole of whole, whole world, because Sadauda was a was a beacon of um, uh, hope in um, during the um, during the time of independence, and he was a leader who led by example and uh, we're praying for him that uh, may Jannah to Firdaus be his resting place. Thank you. Okay. defe naa ne ànd dégg kàddu yi Papa Ndiaye gaaral na kàddu yi njaalam ci turu li nga xamee ne moom moo nekk njabootu pipi Amadou ñoo ànd dégg kàddu yi Papa Ndiaye moom mi nga xamee ne démb mu ngi woon ci kër Saa Daawda lan nga ñu mën a indil tënk ci kàddu yi nga xamee ne moom nga fa dégg démb. waaw jërëjëf maam ji bi euh, ni nga ko waxee noonu la ñun ñoo ko déglandoor euh, moom Papa Ndiaye jamono ji mu nekk moom secrétaire général euh, bu parti bu PPP ndax nag ku wax PPP sa xel dem ci Sir Dawda Kairaba Jawara moom bu ñëwee ci parti bi parti bu mu juddoo bee si place bi nga xamante ne papa ki nga xamante ne mooy Papa Ndiaye fu mu nekk moom foofu la dooree moom moo nekkoon secrétaire général of the party loolu xewoon ne 63 euh, euh, gannaaw bi nga xamante ne dugg na ci partie bi 1960 euh, ñu def ko li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy member of parliament ci loolu dégg nga ci kàddu gi nga xamante ne mooy Papa Ndiaye am na tiis ndax moom ci partie bi la bokk ci la jaale waa parti bi waaye tamit jaale ñi nga xamante ne moo waa réew mi ndax réew mi ñëpp ñoo bokk moom ki nga xamante ne mooy ki fi jógee taxawaayam ak dayo bi mu amoon ci réew mi kon niñ ko waxee depuis démba ba léegi ndax démba Eh, bokk nañu ci njëkk ak ci kër gi yeggee njaalam famille bokk ko ak ñoom nag eh, boo ko xoolee da nga xam amna am na démbali ko tamit am li nga eh, dal comme ni mu dalee ci réew mi ci ki nga tamit papa dégg nga mu wax ci ne ndaw yi war nañ wax kan mo neke ki nga wala kan mo nekon Sir Dawda Kairaba Jawara jaar-jaaram waaye ci loolu tamit de xam nga ne moom Sir Dawda dafa dal di bind li nga book Euh, tuddee ko yi nga xamante ne mooy Karaba wax ci jaar-jaaraam te bu boobu foog naa ne ndaw yi war nañ ko mën a xam xam fan la jaar ak lan la defar réew mi fan la féete woon réew mi te kaddu yooyu papa ci loolu la doon ñëw gannaaw bi nga xamante ne yeggee na njaalam euh, ñi mbokkal parti bi di PPP waaye tamit famille bi ak waa réew mi waaye Afrique ak àdduna si yëpp ko ni ni ko waxee ndax euh, Sir Dawda moom daal ci niñ ko mën a waxee tollu woon la wala nekkoon na ki nga xamante ne ñëpp la féete woon ci fànn yu bëri ci biir réew mi waaye ci Afrique ak ci àdduna si eh, ci li nga xamante ne mooy eh, moom papa ni mu ko waxee maam ji bi jërëjëf Amadou daañu dellu si waat ci yow ñu dellu ci Ndeye Fatou moom ba tey comme ni ko Papa Ndiaye defee ak ñeneen ñu nga xam ne gaaral na seen kàddu njaal moom tamit wax naa leen ko ci eh, li nga xam ne mooy social media bi am na consaan gambien yu bëri yu nga xam ne ñoom itam fësal nañ seen kàddu njaal Ndeye Fatou ñi bàyyi la rek nga indi li nga xam ne mooy taxawaayu kàddu njaal yi ci social media bi still on the condolences uh, ñu dem ak Modou Sané moom rest in eternal peace to the man of peace good symbol of Africa father of Gambia's independence Sir Kaira Jawara Ah, waaw Modou MC Sané moom moo kaddu gi wane réew mi ñàkk nañ way juur eh, réew mi ñàkk nañ nitu jàmm kon mm-hmm. defe naa ne loolu am na solo yal na ko suñu borom xare aljanna moom aji jiitu ji ba tey ñu continuer ak beneen comment waaw ñu ngi am kaañi kéekéey mu ne the death of Gambia's former president Sir Dawda Kairaba Jawara has been announced the former president who led the small West African nation to independence in 1965 from British colonial rule died peacefully at his home in Fajara in the early hours Tuesday, August. Okay. He was 95 years old. The elder statesman who ruled the Gambia for 30 years will be largely remembered for his respect for human rights, democracy, and rule of law throughout his tenure as president. Gambia's uh, across the globe, an international community remembers Saudawda Jawara for his leadership in the areas of peace, security, and most importantly, his compassionate modesty and respect for the dignity of his fellow citizens. He championed human rights and was known to be a peacemaker throughout the world. He is simple and a peaceful man. I will never forget the advice and the support he gave me. May he rest in perfect peace. amiin ah, loolu am na solo nañ ko déggee tamit ci eh, li nga xam ne mooy kàddu yu njaal yi ci social media bi ñaar yooyu wala dangay indi ñetteel bi rek wala eh, waaw. waaw ñu am ah, am na keneen ku tudd Ibrahim Cissé. moom mu ne yaa mu ne may the creator grant and welcome you to the highest gardens of heavens. May your name, legacies, and spirit linger in the minds of every Gambian. Thank you, sir, for serving and striving for the Gambia. jërëjëf defe naa ne euh, kaddu yëpp benn la jaajëfal ko sant ko la ñëpp di def ñëpp ñu ngi mhm. fësal tam seen kaddu yu ñaan ci sunu borom xare ko aljana ci aljana yi nga xam ne ñoom ñoo gën a kawe ci daw si muy aji jiitu ji di saa Dawda Kayraba Diawara moom bi nga xam ne tey waxtaari xam duñu fi jógee ku nekk ci askan wi dana fësal kaddum ci jaar-jaaram ci mbaaxam ak yu jëm ci yooya ba tey démb am na keneen ku nga xamee ne gaaral na fa kàddum Pa Tamba Suuso moom tamit lii la gaaral ci kàddu yu njaalam ñi dem teewlu Pa Tamba Suuso ci kër ki nga xam ne mooy aji jiitu ci Sir Dawda Kairaba Jawara nata iterile ma andu aduna bebe sunori mbi kaatu sada akudi kubeto dorona ke bangoka atar dawda ay kubeto kije sada da ngalo adu nyanda masanji ta woro ni lulu nga malo fa fene foto be ya moro mati amaka mo barandi moro mati amaka wandi kuma fo ne wandi kuma faye akara fo na mari na ta fo ita fa nyara ba ata fo tonya na okay fa banta sada da bi dame mo mukani mo buranyola naja kafara mo mo kama itele yake sada wala bulu mena nte bɔra london taara ji bɛ jɛn taara ji bɛ bina a ye pipi pira ka bagatɔ bɛɛ di ntɛli la a ko n ye sanba y'a di yaya sise yɛrɛ ko n ka pɔtigi bɔ la london ntɛli bagatɔ bɛɛ nati n taara yaya si n ka di a la ko n ye dimanche don batu n ti taa bɛ ladinja la sɔn ko la kɔ da kɔnɔ pipi pipi jɛnkulu bɛɛ bɛ dɔ jɛ n ka siraw dante sada wala nɔnba n ka di i la i bɛ n'a di yan bɔ a ko yɛrɛ ni baara n ka pɔtigi bɔ la wala ni n ka ja karisa ye ni amo e boru kala fo sa dan da da wale akote de fani adam ya si ya lo sa da de ko kabro tu ba kai po dobra tamba tu to fa adat de lo lo tete nga po lo bona kabro tu mo bare momo ndere momo de mote mote na akaden la sa da da yo fo nyele abeta adu ngalo ko lata la ngala nya fa to mun gala awata ba bare sira mu fale sa da udan sa tantu mama na musa alayi mama na musa ya de mun di sa da wala mu chillate Ah, ah, ati ati bende kila barin ke olu loktor olu kila family abeya kele kila la kodo to mun ta arse kadu en bira radio to bira ko jere ngal dana adi am fama fodo haw ngal adi alni bara bak jërëjëf eh, pa tamba suso defe ne njabootu PPP la dégg ngeen na mu gaarale kàddum ci wóolute gi nga xamee ne Sa Daouda dem na ba ba mu tëlee mu jël lépp lu jëm ci lenge ya mu yore woon jox leen ñoom ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ndaw yi parti bi ngir ñu continuer liggéey bi te doonoon na ko nga xam ne wax na ko ci ay kàddum lépp loo ko wax te mu jàpp ne da nga koy wax ci ginnaaw sa nawle daf lay ne est-ce que bu toogoon di nga ko wax ci kanamam loolu yëpp bokk na ci dëggum Amadou ñi dellusiwaat rek ci kàddu yi dégg léegi ci Patamba Suusu ci kër ki nga xam ne mooy aji jiitu ji Issa Daouda Kayraba Diawara foofu ca fi nga xamee ne mooy Kayraba démb ci fi nga xame ne moom moo nekk Faraba euh, nu mu tudd euh, euh, gox ba nu mu tudd ci Fadiara ok foofu ca Fadiara yaa ngi foofu démb kàddu yi yëpp foofu la rusee woon lan nga ñu mën a wax ci ni nga déggee léegi léegi ci Pa Tamba Suso moom tamit. waaw jërëjëf maam ji bi comme ni nga ko déggee noonu mu ko wax. Demba euh, maa ngi fi woon bu mu doon gaaral kàddu yi euh, da ngay gis ne buy waxtaan am na li nga xamante ne euh, yëg-yëg la ci moom. Mm-hmm. ndax fu mu jaar ak fi jógee la. ci loolu tamit ci loolu sax Demba ñu dégg ne moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon euh, ñi ko ñi gënoon a jege président bi ci wàllum ñi nga xamante ne mooy kilifa aada ci jamono jooju ndax président ñi xam nga dañoo baaxoo am ay géwél mhm. wala ñi nga xamante ne ñoo leen di jege waxal leen si leen lu baax te moom ci ñooñu la bokkoon euh, mhm. ci jamono jooju moo taxoon démb bu ñëwee fii mu waxee nii waxee ko xool waaye da ngay gis ne ci kanamam dafa amoon naqar gannaaw loolu sax bu mu waxee kàddu bi ba pare euh, jóge am fii yombutoon Euh, ndax nekkoon ku amoon tiis la yëg-yëg bi nekkoon li nga xamante lu métti woon ci moom kon ñu bari démba buñ fi ñëwee ci jigéen yi tamit ñu bari di doon yi ci li nga xamante ne mooy ci lu fi xewoon ci noonu la nag moom tamit da ngay gis ne euh, loolu la doon nattali ci Euh, diggante mag euh, former président Sir Dawda Kairaba Jawara waaye tamit euh, ci ñu bari ñi nga xamante ne ñëw nañ fi démb daanaka kàddu gi benn la rek comme ni nga ko waxee jàppoon nañ ne daal ku ku amoon solo la taxawaayam ci réew mi benn la kàddu gi waxoon nañ ku ku bëggoon jàmm la ku mm-hmm. bëggoon li nga xamante ne mooy yemale surtout li nga xamante ne mooy ci nit ñi waaye tamit amut xaaj ak seen ñëpp la yemale ci fi mu nekkee woon nit ñi ci li nga xamante ne mooy ci leadership bu mu doonoon président of the Republic of jaar-jaaram tamit nekkoon lu am solo euh, ci wàllum euh, démocratie waaye ci wàllum éducation euh, ci wàllum fànn yu bëree bari li nga xamante ne moom saa Dawda taxawee na ko réew mi waaye tamit comme honorable Mai Fatty nu mu ko waxee léegi la jéggi na sax li nga xamante ne mooy réewi Gambia dem na ba Afrique ndax démba boo seetee réaction si ba ci aduna yu bëri am na kilifa yi nga xamante ne bokkoon nag ñoom jamono ñoom yëpp wane nañ seen naxar seen naxar ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi dund am na sax ñi nga xamante ñoo ko jiitu jógee ko fii tey fekk ji na leen foofu ci barsak waaye daal li ngay liñ cee mën a jànge wala liñ cee mën a wax mooy euh, nekkoon na kenn ki nga xamante ne euh, am na àndandoor yu bari yi nga xamante ne sekkoon na ak moom ñoom euh, jàmm sekkoon ak ñoom li doon doxal li nga xamante ne mooy réewi Gambie tamit Afrique Euh, ci fànn yu balu euh, fànn yu bëri surtout ci wàllum li nga xamante ne mooy justice démocratie ndax ñu bari ñu ngi wax ne démocrate la te foog naa ne euh, ñu bëri nangu nañ loolu te tamit indi nañ ci certain yu yaatu yaatu maan ji bi ci kàddu ki nga xamante ne mooy kilifa boobu lim wax démba jërëjëf defe naa ne kii dagg bu mu njaam kook fay ko ci xayam defe naa ne jërëjëf jeexalu ko moo tax buñ ci nekkee ba suba sax mënuñ koo jeexal ndax bu nu bàyyi xel li nga xamee ne moo nekkoon diggante ñin ñu ak ñi nga xamee ne ñooy tubaab yi ba ñoom ñi yore woon li nga xam ne mooy seen cëggal guy fu leen neex foofu la ñuy xàcc ñoddi ñi ñu jëmee fa moom mu ñëw dagg li nga xame ne mooy mbuumu jaam googu saxal jàmm ci réew mi ba ñuy woowee Gambia the smiling coast of Africa loolu yëpp dégg nañ ko ci kàddu yi may faat yi wax na ko ñu wat Ndeye faatu mu indil ñu comment ci social media bi ndax wax naa leen ne foofa tamit am na ñu bëri ñu fay gaaral seen kàddu yu njaal di ko yeggee njabootu ki nga xam ne mooy Sir Dawda di ko yeggee askan wi ndax ñoom ñëpp ay concerned citizen Gambians lañ te bi ñëpp la dal ci biir li nga bi. day faatu yeah wow am na ku tudda Kaba Jaite moom mu ne we belong to Allah and to him we shall return rest in peace uh, Gam artists Association of Gam Artists. yeah mhm. ñu ne the former president Sir Karaba Jawara passed away rest in peace. waaw defe naa ne ñoom gam artiste ñoom ñi nga xam ne ñoo yore aada ak cosaan bi te mm-hmm. jiitu réew mi loola tamit lu mu fonkoon la mm-hmm. jamono ba muy dund ndax boo xoolee ki jógee wax léegi géwélam la ci wàllu taxawaay ndax Amadou wax na ko te démb dégg nañ ni mu doon gaarale ay kàddum ci njàmbaar gi nga xam ne Saa Daawda defoon na ko dëggu bi Saa Daawda defoon kon buñ déggee ndaw yi nga xam ne tamit ñoom ñoo nekk ci wàllu aada ak cosaan ci biir réew mi ñu gaaral seen kàddu yi njaal am nañ njort bu rafet na def nañ seen waru gar ñu dem ak beneen comment ci biir li nga xam ne mooy social media bi. ok um, Aliou Rakim mu ne uh, rest in peace daw Dawda Kairaba Jawara the first president of the Gambia waaw defe naa ne loolu ñëpp moom lan wax ne mooy the first president of the Republic of the Gambia mu taxaw taxawaay bu amoon solo ba tey ji taarix lépp lu ñuy wax ci loola boo déggee kàddu yi ñuy fësal seen kaddu yi njaal lu nu mel di nga ko déggee ci seen kàddu ndey Fatou defe naa ne loolu am na solo ba tey Amadou ñiy delluwaat ci yow boo déggee comment yi ci social media bi ci tiis bi nga xamee ne moom moo dal réew mii dafa mel ni yëmut rek ci ñuy ñëw ci këram di jébbal seen kàddu yu njaal waaye ku nekk moo ngi koy def ci anam ba nga xamee ne mënee na ko ko te noonu la ko gën a yombee ngir tiis bi nga xamee ne moo dal réew mi te mu nekk dëj bu nga xam ne réew mi yëpp ñoom ñoo ko bokk. yeah loolu moom euh, noonu la demee euh, ni nga ko waxee euh, noonu la parce que réaction bi dafa dafa yaatu jéggi na ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi Gambien si fu nekk ci àdduna ñu bëri wane nañ seen réaction wane nañ seen yëg-yëg ci li nga xamante ne mooy ci xibaar bi bana gannaaw buñ ko yëgee ne ki nga xamante ne mooy Sir Dawda Kairaba Jawara noppaleku na démba gannaaw bi nga xamante ne dund na ci at yu bëri ci li nga xamante ne mooy ci at ci dundam ñu wax rek ne Euh, comme ñu bari dem ba nuñ ko ñu ko réacté fii ci réew mi eh, bu njëgee xibaar bi bàyyi seen yitte bàyyi ci lu ñu jàppoon yëpp euh, gaawtu ñëw fii ni yëggee ci euh, ak si si kër gi Euh, ñëw yeggee seen njaal li nga xamante ne mooy famille bi euh, fii ci euh, Fajara fi nga xamante ne foofu la dekkoon noonu tamit ñu bëri noonu lañ nii non noonu lañ demee ci social media bi binda yeggee seen seen njaal wala wane li nga xamante ne mooy seen seen seen naxar ci li nga xamante ne mooy li daloon ci réew mi demba kon wax naa la tamit kilifa yu bëri ci biir réew mi ba ci biti réew noonu lañ ko defee yónnee leen seen condoléances ci li nga xamante ne mooy ci réew yi Gambie bokkoon na ci Euh, ñi nga xamante ñu ngi ci réew mi nekk ay diplomate euh, ñu mel ni American embassy ak yeneen embassy yi euh, ci réew mi ñun yëpp yeggee nañ li nga xamante ne mooy seen seen njaal ci ci ci ci government bi waaye ci réew mi soo loolu nag boo ko gisee ki fi jógee la dayoom ak fu mu toll woon ci réew mi kon nañ ko waxee woon soo maam ji bi jàppal ne daal réaction si nga xamante ne Gambien si yow nekk ci biir réew mi ba ci ci biti réew niñ ko defee euh, foog naa ne euh, lu jaadu la waaye tamit ñu bëri sentu nañ lu mel ni so obviously euh, lii moom li li li war a am la loo moo tax ki fi jóge mu am réaction bu mel ni te jàppal ne daal fii ba bala ëllëg wala ñu ko jébbal boromam réaction day continuer di way ndax tey ci kër gi buñ ci agsi buñ fi agsee tey si suba nit ñi bariwuñ toon euh, affaire bi def ne selo waaye ci euh, noonu ngay gisee ci nit ñi commencé di ñëw kon euh, ni ma la ko waxee si suba dëkkandoor yi ak yeneen kilifa yi si suba waxtaan nañ ak honorable bu Halifa Sallah honorable bu may Mai yi léegi la fi jógee balaa loolu ki nga xamante ne mooy ministre yu bëri ñëwoon nañ fi juróom-ñeent juróom-ñaar ci ñoom. Eh, bokk ci delegation bi nga xamante ne nañ fii eh, yeggee li nga xamante ne mooy seen ci kër gi eh, balaa ma lay delloo kàddu dafa mel am nañ beneen kilifa bu fi agsi moom tamit ñu wax ak moom ci li nga xamante ne mooy ci yëg-yëgam ci lu daal ci réew mi daal ci li nga xamante ne mooy ci waa réew mi yëpp kilifa gi ñu ngi lay nuyu gannaaw buñ la masaw yeggee la li nga bi saa Dawda Kairaba Jawara nekkoon kenn ci ñun nekkoon njiiti réew bu Gambia Uh, for the first time. Uh, suka su, su, su defe waaw waaw mun nga mun nga wax si soose tamit oh, nga wax sa yëg-yëg amul problème su ko defee nga wax ak waa réew mi sa yëg-yëg ci li nga xamante ne ci xibaar bi nga xamante ne mooy génn àdduna Sir Dawda Kairaba Jawara incha allah mhm. eh, inna lillahi inna ilayhi raji'una mhm. inna lillahi inna ilayhi raji'una mhm. ndel de ndemen be ñin kumo foga nde to mu jal moro susolde nde fana wuluta gambia janne basse you are bi me meyenteli saabu jam wala ketan na keɓala kuñate gambia la sano nala lulo nala président folo folo me independent ta nyim banko la nyim banko kan iko wala mambalu na wala kibaro la moyu mfana ngambor na na tamabe ka woku wala je nyala membe fola membe kela ngoje nga mendi non na duato nga kae ala sinemo me fura umume la be wokuo wala enteli saabu jang adun jan yaɓe alfa la jan alfa be jan jawra fon a to be jan saranu jata ngatar jan a be jan malam fati ngatar jan na minister be jan hasana jallo a jan woni alfa jamali be ma ɓeeri bir musu kunda ke kunda jawara la bete yayi e nyin sile katu atele banko. independanta babira independanta e- nyimbanko mara banko mol man nimisa muna yakendi jawara kita president nyimbanko ka man nimisa wala ayata men kama yake wanyana ma oto kama ni ala nata ala balwo dandi bida men kumma yata fani men ma nyasodo bari damya diwo di ninga nyasodo fonsi futa jangana duwala dimbayal yenga duwata fonye wala enteli sabu jang adun jawara la nyaton kaya kuna yakata paki hay kata kuɓal leke gambiya jang n te mel dooli jela katu niyole be toranin mbi ni hakkilo man ten kun kuuɓe kuuto ito fonola bari ŋaala aye démocratique bambandi le ñin banko kan ay banko mool promisi wala lele ayo kele adu ŋaalo aye seno yiriwandi le jang ay mool promisi wala le wo keta le jang adu ŋaalo na aye luwa kendo di banko la wo keta le jang banko ye baluña kendo soto le jang ndel yo be seedeyale wo mu banko kono kuwol lete ni data bandala kuole ay menkata la jinenyoli eraninyoli labiriyañoli fitino fundila dawɗa ndalota labiriya kelo jawyata ñawña tele ni mbaba ya kuwo ranse fo ecowas barkata ñimbankuli kañɗan eraki erani kelo mo wuli wuli on le fata je biri ya kiyamani ya diela wulita ay kuma fula fo bo hani bi wala adada ako kele banna no kete kele lati duniya kono duniya be khayro sotola fata sotola ay wala fo ayatullah ko meniye men ñanta kelo banna duniya kono ko kete kele lati duniya kono duniya be kele di ayatullah yede yede aka ay kuma la be mobe nati jabari ye kuma fo ñen namuno moy ayatullah kay aka mbella moy le kuma kan kumala la fe wolun ayatullah e sonda ata sala musani akaye ayatullah e ko ceasefire tulaye ko a sonda kiɗi fayi o londi saɗon ka e nayi alonde a alonde ƴiyamo keɗatene erani eraki kelo banda na ñafano kono kele man jaw yawote otu jawara ya katale nden fana naata ka duwa ala ye nemo kate anin furioli be a kolali ala e ganiya seniya men ndi ala ay ɓarakol men ndi ala ala saada dimilla mbe gambiya be kon ɗon na sangola mbe jawara kunda be kon ɗon wala mo wo salam Abarka Baake uh, very emotional there of course uh, kon ni ngeen ko déggee uh, moom tamit ñëw na bokka ak famille bi li nga xamante ne mooy tiis bi dal réew mi moom nag lim fi wax ci tenk rek ne wax na lu bëri ci li nga xamante ne mooy ci Sir Dawda Kairaba Jawara ci mhm. jaar-jaaraam surtout nu mu taxaw woon ci bitimi réew ci jafe-jafe yu nga xamante ne daf am ci jamono jooju waaye tamit démocratie yi nga xamante ne xeexal na ko réew réew mi jàmm bi nga xamante ni xeexal na ko réew mi euh, ci euh, fu mu mujj sax xol bi demoon na ba fees euh, ah. munta li nga xamante ne mooy jeexal kaddu bi nga xamante bo bi mu doon wax jàppal ne daal nii lañ kon ne di waxtaan kilifa yi fii lu fi ne ñëpp ñoo ko bokk ah, réew mi moom li nga xamante ne mooy tiis bi ak métit bi nga xamante ne moo daal waa réew mi lii nag ku fi jógee la moom moo moom moo ni mel because saa dawda saa dawda ñëpp la maam ji moom tamit waxtaan ak ñun ci yëg-yëg bi nga xamante am na ci gënam àdduna bi nga xamante ne mooy kilifa boobu. Hmm. démb fii ci euh, këram Fajara. te Amadou dafa mel ni moom fa mu jógee sori na mu ne mu nga jógee ba ci goxu fi nga xamee ne mooy Basse te comme ni nga ko waxee fa muy jeexalee ay kaddum dafa mel nii rongañam tuuru na ci tiis bi nga xamee ne tey moom tamit méttul na ko te jóge na fu sori bàyyi ay yitteem ñëw ngir li nga xamee ne moom la réew mi ñàkk. exactly noonu la demee euh, waaw xool xol bi fees na torop tamit fu jógee sax euh, sori na Basse Euh, mu ñëw fii te nee neen loolu euh, ku leen la war ku am time wala ku am li nga xamante ne mooy euh, waxtu bi war nga mun a bàyyi ci li nga mënta jàpp nga ñëw fii bokka li nga xamante ne mooy tiis bi ak famille bi ndax moom mi nga xamante ne mooy Sir Dawda amul xaaj ak seen ñëpp la taxawoon réew mi moom ci jamono ba mu fi jiite réew mi ci jamono jooju kon ni mu ko waxee nee na Sir Dawda ñëpp la woon te loolu foog naa seet ndey ñu fi jaar yëpp loolu la ñuy wax kàddu gi benn la ci depuis démb ba léegi moom tamit loolu moo tax mu bàyyi yitte jàppoon ñëw bi fii yegg ci euh, famille bi wane li nga xamante ne mooy yéeg-yéeg bu mu ci am waaye tamit ñoo bokk ak ñoom li nga xamante ne mooy métit bi euh, ci li nga xamante ne mooy li leen dal dal waa réew mi euh, démba ci li nga xamante ne mooy génnoon àdduna Sir Dawda Kairaba Jawara waaye tamit wax na lu bari ci li nga xamante ne mooy ci taxawaayam kon ni ma ko waxee ci biir Gambia waaye tamit ci bitim réew ci mel ni comme mm-hmm. Liberia wax na ko Iran ak li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy Saddam Hussein ak yu bëri ci def ko tënk rek ndax nee am na lu bari li nga xamante ko mun a fàttali ko jamono ji ndax xool bi neexul waaye xam naa ci jimmi jamono buñ hmm. mu ne am waxtaan ak mel nii comme moom wala moom lu bëri ci jaar-jaar hmm. saa daw da dina ci mën a wax indi leeral yu bëri euh, jàppal ne daal euh, am na méttit comme ñëpp li nga xamante ne mooy dal na suñ kaw euh, ci démb ba tey euh, ci li nga xamante ne mooy ci euh, génnum àdduna Sir Dawda Kairaba Jawara. acca euh, Ndeye Fatou ñu dellu si ci comments yi ci social media bi gis nañ ba tey kaddu yu njaal ya ma ngay fës ci kër Sir Dawda ndax ña fa ñëw ku nekk ci ñoom mu ngi gaaral kaddum dina gën a yaatu ci li nga xam ne mooy jotaayu Eye Africa TV special edition la ñu ànd ak yéen ci tiis nga xam ne moom moo dal réew mi ci the first president of the Republic of the Gambia Sir Dawda Kairaba moom mi nga xam ne moo tax Gambia am independent Taïf tey la làqu ci biir li nga xam ne mooy réew mi démb ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru li nga xam ne mooy ogos ëllëg lañ ko fas yéene jébbal boromam ci biir réew mi waaye jàpp leen ne Eye Africa TV dañ leen di dëgtal lépp luy xew-xew ci biir li nga xam ne mooy tiis bi comme niñ ci àndikeen tey ci special edition bi ak yeneen special edition day faati ñu ñëw ci social media comments yi ba tey Uh, yeah social media bi moom ñoom ñu ngi comment xam naa ne duñ mën a riit ñëpp tey sax mm. waaye uh, kii di caméraman la kii Alhaji Manka la tudda moom mu ne to Allah we belong to and to him we shall return sleep well Dawda Jawara may Allah grant you highest jannah hmm. am na keneen tamit Rich Dad Fati uh, mu ne rest in peace to the first former president of the Republic of the Gambia, Sadauda Kara Jawara, in the silence of night, when the voices are few, I pray to God to take care of you when the stars are shining and the flowers are due. I pray to God to take care of you. Ndeye Fatou nañ dellu ci Amadou ñu ñëw nga continue ko nga xam ne Richard Fatou allo Amadou waaw maam ji bi jërëjëf euh, ba léegi ñu continuer waxtaan bi fii ci kër gi euh, kilifa yaa ngi dem di ñëw kon niñ ko waxee woon Euh, depuis suba bi léegi am nañ euh, beneen kilifa ñu waxtaan ak moom li nga xamante ne moom tamit euh, ci yëg-yëg bu am gannaaw bi nga xamante ne mooy Saa Dawda Kairaba Jawara génn àdduna mu ñëw yëggee njaal li nga xamante ne mooy famille bi su ko defee kilifa gannaaw bu ñu leen nuyoo jaal la li nga xamante ne mooy li ñu dal démb fii ci réew mi ñu bàyyi la nga waxtaan ak waa réew mi ci yëg-yëg bi nga xamante am nga ci génn àdduna Saa Dawda Kairaba Jawara. man suma xool neexut. waaw mun ngaa wax tamit si soose. man suma xool neexut. Mm-hmm. parce que saa daw na kayra ba jalara nit ku baax yi. Mm-hmm. ku yëg nit yi la. Mm-hmm. man bu ma ko xam in 1959. Eh, soo gisee eh, politique dem si kanam si biir Gambia. Eh, Jawara la yëg na nit yi fonk na nit yi bëgg na nit yi bëgg na mbokk bi na réew bi euh, man de maa ngi mhm. euh, mhm. soo gisee ma ñëw si kër gi mhm. ah, ñun yàgg nañoo si biir politique ku baax la seete nañu surtout Oje Diallo soo gisee Oje mel lu mel tey jabara la soo gisee Oje moo am daraja si biir Serekunda West Serekunda East yàlla jabara eh, ñu masaw man de suma xool nit ku màgga moo gaañ du di xool wool ko yàlla yore amiin amiin yal na ko suñu seede amiin yaa ko suñu ayoote amiin yal na ko yàlla jégal bàkkaar amiin amiin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay masaw beneen yoon uh, di uh, kontaan bu baax a baax Euh, kooku tamit kenn la ci kilifa yi ñu fi yegg ci euh, kër gi pour yeggee seen jaal nee na xol bi neexut euh, te ci kaddu gi dañ ko yëg mu am yëg-yëg li nga xamante ne mooy ci génn àdduna sa Dawda Kayraba Jawar nee na yàgg nañ ñu xamante depuis 1959 te loolu loolu ak tey yàgg na du tey definitely moo tax ñu def ñu defante lu bëri ci politique comme ni mu ko waxee su ko defee mu ngi noonu kilifa yi ba léegi ñu ngi continuer di wéy di agsi ci kër gi maam ji bi xam naa ne euh, ñu delloo leen kàddu ba ci kanam tuuti ci kanam mm. tamit ñu am ñeneen yi nga xam ne waxtaan ak ñoom ci euh, ci kër gi ndax wax naa la tey moom euh, waaw nii lay demee ci kër gi ndax kilifa yu bari jaar nañ ci depuis suba ba léegi waaye ba léegi am na ñuy ñëw te ci loolu lañ continuer waxtaan ak ñoom ñu xam seen réaction ak seen yéeg-yéeg waaye tamit ku fi nekkoon président bu Gambia fan leen jaar ak moom nan lañ ko mën a fàttale ko ban legacy la fi bàyyi réew mi lan lay a jànge ci moom loolu yëpp nañ ci mën a waxtaan ak kilifay ndaw yi mun cee jàngee Gambia mun cee uh, am tamit njëriñ bi nga xamante ne jubluwaay bi na ci am solo Eye uh, Africa TV liggéey boobu lañ uh, taxawtee incha allah ñu delloo leen kàddu bi ci kanam tuuti. ac ñiy continuer defe naa ne dégg nañ tamit kilifa googu na mu gaaralee ay kàddum wax soo xoolee ndaw yu mel ni tey Oje Diallo bu déggee ay kàddum wala gis taxawaayam ci biir réew mi ku mel ni Sir Dawda Kairaba Jawara moo def lu mel noonu ci ndaw loola tey ba mu doon kilifa ci biir réew mi mu doon royuwaay loolu yëpp bokk na ci lim indi ci kàddu yi seedeem ba tey comme ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi ànd ak Ndeye faatu moo ni indil li nga xam ne mooy comments yi sur social media bi li nga xam ne Moussa Daouda Kairaba Diawara ci ronam la Gambia moomee boppam ci atum 1965 ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon euh, United Kingdom tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon di buum di bummi ci euh, njiitalu ki nga xam ne moom moo nekkoon Queen Elizabeth ak ñu jëm ci ñooña waaye loolu yëpp moom taxaw na ci taxawaay bu am solo ba mu gis ne lu nu mel dàkkal na réew mi moom boppam ci li nga xam ne moom moo nekk euh, dagg mbuumu mu jàmm ci suñu diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon tubaab yi day faatu ñu continuer ci commence yi waaw ñu dem ak Uh, Rich Dad Fatty ci um, social media bi mu rest in peace to the first ex-president of the Republic of the Gambia of oh, first former president of the Republic of the Gambia Salvador Kairaba Jawara in the silence of night when the voices are few, I pray to God to take care of you when the stars are shining and the flowers are due. I pray to God to take care of you when the sun is sleeping and the clouds are in queue. I pray to God to take care of you when tears are more and laughters are few. Grandpa, always praying for you. We will miss you. We have seen the work you have done for the Gambia. You make us to reach at this uh, to see uh, where our parents even don't think we will reach. Thank you so much, Mr. President. Sir Dawada Karabajawara, we love you, our beloved grandfather. jërëjëf Richard Fati def naa ne mm. moom itam ñaan yi am na solo yàlla na mm. suñu borom nangu ñaan yi ci aji jiitu ji beneen comment nga ñëw ci balaa ñëw continuer waaw ñu ngi dem ak ah, Balarangs moom artiste la euh, ñëpp xamee nañ ko si Afro Manding euh, mu ne rest in peace sir may God the Almighty Allah reward you for every good things you have done for Gambia Africa and the world at large jërëjëf Balarangs moom itam ndaw la ci wàllu aar lay dox. defe naa ne dégg ngeen na gaarale kàddu yu njaal noonu la ñuy demee rek teewluwaat kàddu yi ki nga xamee ne mooy njiit réew mi président aadama Barrow démb bu mu ñëwee jébbal njaalam ci kër ki nga xamee ne moom moo nekk aji jiitu ji di da Dawda Kairaba Jawara lii la wax ak ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi ñu dem teewlu kaddu yu ni mel dellu si ci biir jotaay ji. after your excellency. Just allow us. okay, I understand you have a declaration to make after you've just uh, paid your condolences to the family. Sorry. Yes, thank you very much. Today is a very sad day for this country. Uh, it's a big loss to Gambia. And it's a big loss to the entire African continent. was a Pan-Africanist, a big politician. It's a big loss to the political family. And uh, we have come to extend our condolence to the family, on my own behalf and my family, and the government and the entire Gambian people. I've discussed with the family. We have uh, discussed on the arrangements of funeral. I think it will, be a, will be a state funeral. We have agreed on that, uh, and it will be done on, on Thursday on Thursday, yes. yes. You described former president as a great man. What are some of the things that you will point to that make him a great man? I think there are a lot of things we can talk about Sadauda. He was somebody who believed in the principle of democracy. I think democracy covers everything. He believed in the rule of law. And he was somebody who was very, very tolerant. And I think he served this country for about 40 years. Uh, throughout his life, he dedicated his life to the service of, of the people. I think that makes him very, very great and unique for them. So is there any... What are some of the things that he would... He was very, very friendly. And uh, he is somebody who always talk about the principle of democracy. He always talk about the rule of law. Uh, and he is very jovial. You know, he create jokes. So he was very friendly, definitely. He was a friend of the family. So is there anything, uh, you know, like... Said funeral on Thursday. On Thursday, yes. We have arranged with the family uh, and it will be done on Thursday. Uh, we discussed about this. They wanted us to do it quickly, uh, maybe tomorrow, but we, we have to allow space so that other people can join us, you know, and, and, and, and, and help us doing the, doing, doing the process, definitely. Thank you. very Thank you. jërëjëf kàddu yi njiitu réew maa ngi noonu président Adama Barrow démb bu mu yegsee ci tiis bi loolu la gaaral ci taxawaayu li nga xam ne moom moo nekk réew mi ak kàddum ak euh, digganteem ak ñi nga xam ne ñooy njabootu euh, aji jiitu ji di Sir Dawda Kairaba Jawara ci naka la ñuy waxtaanee ba taxaw ki nga xam ne moo nekk aji jiitu ji noona tamit la fësale ci ay kàddum démb wane ne suba incha allahu alxamis lan fas yéene jébbal ki nga xam ne moom moo nekk aji jiitu ji boromam ci li nga xam ne moom moo nekk biir réew mi ak taxawaay yi nga xam ne fësal na ko ci niñ déggee nguur gi fësal seen bataaxal ci lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk déj bi nga xam ne ñu ngi koy sénti suba day fàttali ñu ànd dégg kàddu yi njiitu réew mi président Adama Barrow wax na seedem ci mhm. ki nga xam ne mooy aji jiitu ji muy mhm. Sir Dawda Kairaba <clears throat> waaw am na comme ni ko gisee rek euh, Barrow moom mu ne like euh, Sir Dawda yàgg na si Gambie bi daal moom mhm. euh, joxe like moo def ba Gambie am suñ sovereignty mooy daal moo ne comme Hmm. suñ ya, ñu am suñ bopp moo waral ñu jot moo waral ñu ñu am suñ ñu ñu am sovereignty moo nu fightal for independence hmm. and tamit uh, like family la more than a family la to him hmm. like moo tax mu ñëw foofu pour uh, show his condolences uh, to to to the family yeah to the family members yeah jë jë jërëjëf ñu dem ak Amadou Wow. Amadou Amadou waaw maam ji bi ñu ngi lay dégg. acc ñi delluwaat defe naa ne dégg nga léegi tamit kàddu yi njiit réew mi euh, ci nim ko gaarale démb ci tiis bi ak jéego yi ak taxawaay bi nga xame ne moom la jël ñi bàyyi la nga tàggatoo ci li nga xam ne moom mooy li gën a fës foofu daañu dellu siwaat ci kanam ñi indi xibaar yi nga xam ne moo fa gën a russe. waaw <coughs> jërëjëf maam ji bi euh, comme ni ko waxee ci jamono ji. Euh, comme ni nga ko waxee woon ci gannaaw rek foofu lañ tollo ba léegi euh, fu mu nekk nii ñi yëpp ñu ngi toogagum di di di xaar euh, ñi kilifa yi di ñëw di yeggee seen jaal am na ñu nekk ci biir am na ñi nga xamante ne ñëw nañ ba am nañ xam jàpp naa tamit am na ñi nga xam ñu ngi ñëw ci yoon bi ba léegi te bés bi xam naa nii lañ ko dundee tey. ñu euh, bëri fii ci kilifa ci réew mi ci politique bi ci aada bi ci diine bi fan na boo mënta xalaat comme ni nga ko dee waxee rek um, every sector um, all walks of life uh, Gambians yaa ngee ñëw uh, yéegee seen jaar fii ci ci kër gi uh, ci jamono ji loolu moo fi xewagum xanaa ñu bàyyagum le ba ci kanam tuuti ñu dellu si ci waxtaan bi fii ci résidence ki nga xamante ne mooy former président di late Euh, Sir Dawda Kairaba Jawara gannaaw bi nga xamante ne yàlla moom na ko démba euh, ci li euh, nga xamante ne kër gile gis nga li nga xamante ne kàddu président Adama Barrow lu mu ci wax ci moom mu nekk kàddu yu nga xamante ne kàddu yu am solo la waaye tamit comme noo ko waxee tamit suba incha allah ñu war koo defal state of funeral foofu ci. naasta national assemblée bi euh, loolu yëpp incha allah suba la xam naa ci kanam nañ jël tubaab ci yaatal loolu ak yeneen yi nga xamante ne nee na fi yow ci kanam maam jibi jërëjëf Amadou ñi jaajëfal ko moom moo ñu nekkal foofa ci kanam daanu dellu siwaat euh, ci lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk special edition coverage yu ñuy ànd ak yéen ci Africa TV special coverage yi ñuy ànd ak yéen ci li nga xam ne moom moo nekk xew-xew bi Ndeye faatu ñuy bàyyi la nga tàggatoo ci li nga xam ne moom lañ àndoon ak gars yi léegi-léegi waaw ah, xaar ma read comment bi rek balaa mm. ñu ah, pare. last comment ah? waaw ma last comment bi. kii mm. Aphrodisi Ndiaye la tudda mm-hmm. mu ne may the Almighty grant him forgiveness. sad day for Gambia hashtag Karaba Jawara waaw moom dafa jël picture ak moom noo ko gisee noonu. Mm-hmm. yeah lii leen leen amal xam naa leen dellu si waat bu leen dem fen xaar leen ñu dinañ dellusiwaat bit moo. gën a euh, gën yaatal comments yi incha allah. jërëjëf jaajëfal ko ndey faatu duñ leen tàggu ngeen toppañu ci kanam daanu dellu si ci beneen jotaay yaatal lépp lu jëm ci li ngeen di xaar ci xew-xew bi nga xam ne réew maa ngi koy dund euh, foofa ca kër ki nga xam ne mooy Sir Dawda Kairaba Jawara ak réew mi naka lañ dundee li nga xam ne mooy tiis bi lépp di ngeen ko yaatal ak Eye Africa TV ci sunu spécial coverage bi ñuy ànd ak ci biir kër gi jërë ngeen jëf. over electoral rigging rocks Zimbabwe as the country. Yesterday, after listening to Prime Minister May's assessment of the state of the negotiation.